manifestation maanaam fépp ci Sénégal loole la ndaw yi Pastef yi wax ci journal bi di Rewmi Quotidien yéen kaay gi nee na en li nga xam ne moom la ñu ko jàpp gi ñu leen di jàpp jamono ji maanaam bëri na lool yéen kaay gi am na juróom-ñeenti militant Pastef yoo xam ne ca diiwaanu Jurbel démb doon na ñu leen waaye nag ginnaaw bi ñu leen atte ba pare tëj nañ leen lu toll si juróom benn weeri kasu yoo xam ne du ñu ko tëdd maanaam six mois du ñu tëdd waa RADDHO ak waa Amnesty International section Sénégal ñoom nag jamono ji daal ñoo ngi sàkku ci président Macky Sall ñu bàyyi nag jàpp gi nga xam ne ngi xam ne ñooy activiste yi yéen kay gi di 24 heures nee na en tout cas li am ba ji maanaam fu mu génn mbooloo mu baree bari di koy topp journal bi nee na ci diwaanu Parcelles bërki démoo Ndiaye ba mu fa demee di seeti maire bu Parcelles Assainies askan wa ñëw mujjee génn yéen kay gi nee na démb ci diwaanu Sénégal daal bu ñu bëggee mu am ak dala maanaam jàmm am ci réew mi nañu bàyyi Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ndax jamono ji maanaam popularité bi nga xam ne Ousmane Sonko am na ko jéggi na dayoo yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy di ko dëggal nee na Ousmane Sonko fu mu génn mbooloo mi génn topp ko ndax démb ca diwaanu Colobane askan wu bare bare ñoo génn daal di koy topp yéen kaay gi di réew mi Quotidien nee na activiste bi di Mohamed Jim ñu gën ko xam ci Hannibal Jim moom nag teg nañu ko loxo niki démb Libération yéen kaay na ca diwaanu Mermoz la ñu ko jàppee loolee lu jëm ci wàllum force spéciale moo tax ñu daal di koy teg loxo yéen kaay gi di direct news nee na lu jëm ci rapport cour des comptes beek état bu Sénégal li tax mu nangu ñu jël ko yóbbu ko fa mbaxana doonee benn du ak neen ndax ñi nga xam ne ñooy partenaire financier yi ñoom nag ñoo teg pression gouvernement bu Sénégal ngir nag ñu daal di génn li nga xam ne mooy rapport bi ba pare jël ko yóbbu ko fa mbaxana doone benn ndax partenaire financier yi ñoom dañoo dànkaafoon gouvernement bu Sénégal ngir nag dakkal seen collaboration bu dee rapport cour des comptes bi maanaam ñu ko yóbbu ko fa mbaxana doone benn Birahim Seck nee fukk yi nga xam xam moom la ñuy wax ne moom lañuy ñuy bëgg a topp bu ñu yem ci ñoom rek ndax nag daas yi ñoom dinañu nangu ñu daal leen ñoom rek direct news moo xëy di ko laaj yéene kaay gi de la point xëy dañu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb ginnaaw digg bëccëg gi dem na sa diwaanu Thiès ngir lak lu jëm ci tournée économique wala ñu ne conseil décentralisé waaye nag askan wu bare bari ñoo génn daal di koy terta mbooloo moo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé yéene kaay gi de yor yor nee na li nga xam ne gis nañu ko démb ca diwaanu Thiès mooy Macky tàggatoo tuura Macky day tàggatoo jamono ji ca diwaanu Thiès ci dëkk boo xamante ni toroxal nañ ko fa ci élection locale toroxal ko fa ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu ndax élection locale ca diwaanu Thiès Macky Sall yeewi askan wi dañ ko faa dóor ba xëlam ko ci élection législative tamit dañ ko faa dóor ci diwaanu Thiès foofee la Macky Sall dem di def tàggatoo tuura yéen a kaay gi de Le yor yor moo xëy di ko xibaar La Tribune yéen a ni mu ci Sénégal ñëw sa diwaanu Thiès waaye nag li nga xam ne moo waroon ci conseil des ministres décentralisé bi maanaam ñu évaluer xayma premier conseil des ministres bi Macky Sall njëkkoon def Thiès ak engagement yi xam ne jëloon na ay jamono respecté na ko waaw wala déet loolee la ñu waroon a njëkk a càmbara yéen a kaay gi de Les li nga xam ne gis na ko Thiès maanaam yaramam dafa daaw nee na musu koo gis fenn soow mi jamono ji ma ñu mooy conseil ministre ministres décentralisé bi nga xam ne jamono ji Macky Sall ma ngi koy amal sa diwaanu Thiès laas yéene kaay nee na mobilisation 3XL président Macky Sall nee lii nga xam ne gis na ko ci diwaanu Thiès maanaam xelam dal na si ndax mbooloo mu baree bari ñoo génn daal di koy terto yéene kaay gi di wal fajiri bàyyi mbir moom i wax ci lu jëm ci procès Adji Sarr Ousmane Sonko ñi nga xam na ñooy waa LD Ligue démocratique ñoom nag jàpp nañu ne procès boobee mën naa dugal Sénégal ci musiba ma bu kumba yéene kaay gi de la na élection présidentielle Bougane yéen kaay gi de la sa xëy ñu Amadou ak Ousmane Sonko ñaar ñi nga xam ne ay collègue lañu ñoo bokkoon seen impôt ak seen domaine maanaam seen diggante doon nañu ko rafetal doon nañu masla waaye nag masla ba jeex na jamono ji ñoo ngi ci ab defante bu métte métti ndax fan yi ñu génn ca diwaanu Pikine Amadou Ba dafa yëkkati ay kaddu naan force restera à la loi Ousmane dem ba ci diwaanu Parcelles Assainies fa Amadou Ba dëkk daal di koy tontu ne Amadou Ba ab la ab ragal la te nag jamono ji bu dëkk bi amee woon yoona ma nga ca kanamu tribunal ya ngir wax alalam ji fan lu ko jëlee maanaam milliards yi kaay gi di Rewmi Quotidien nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk hôpital principal démb amal nañu toogaanu ñaxtu maanaam ab sitina la ko waral mooy accord yi nga xam ne ñoom signé woon nañu ko ak gouvernement bu Sénégal fukki fan ci weeru mai atum 2022 te gouvernement bi respecté wul accord yooyee loolee moo tax liggéeykat yi nekk hôpital principal bu Ndakaaru mer nañu ba mara détaillé démb wane nañu seen naqar jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dund